exactement ginnaaw wàllu wu ni mel daal di ñëw si euh, fisc euh, à la presse coow li nag gis nga ko exactement alors euh, sa récente sortie Madiambal Diagne moom nee na du fay exactement il a insisté aussi il a percé sur ses propos que ni du ko fay alors euh, c'est c' 91 millions yi nga xam ni itam dañ ko redressé contre le quotidien euh, du journal euh, le quotidien moom ki nga xam ne que moo di Madiambal nag jàpp leen du ko fay affaire harcèlement la jëm seen kaw concrètement alors ban analyse nga si def Malcom. moi je dis que Madiambal dafa yëpp Sénégalais mais na xam ni la woon dafa wane. Mm. ñi fi nekkoon ak ñi bokkuñu ay vision bokkuñu tey dañuy ñëw commencé ci li nga xamante ni moom foofu Ousmane Sonko le premier ministre actuel fan la commencé. bi muy jox ay révélation na amna ñi nga xamanteni ni dañu fay seen impôt. Mm. amna ñu bëri daf leen limoon. te nga xamanteni lool mo moo nekkoon sacerdoce am mu ci xex ba yalla tay andi ko ci pouvoir lool non da koy saytu bu baax baax ma Madiambal Diagne du ko nexé man na wax hein, parce que micro yi légui moy li ma wax légui en matière de la mondialisation gars yi illusion lañu jaay ku nekk da ngay xey di wax lu neex. Mm. mais ma Madiambal Diagne ak keneen kudul ma Madiambal Diagne. da ngay fay li nga war a mën a fay exonération yi daan am wala ñuy bàyyi nit ki parce que suñu la bokk yooyu moom moo fi jeex te ñu demee ba ñu xool ne da nga war a am taxe yoo war a mën a fay pour ci réew mi da nga ko war a mën a fay je fais allusion au-delà de Madiambal Diagne comme ni ko damay ñëwaat li nga xamante ni dama dëgg le président Diomaye Faye wax ko. Hmm. mu ne na gars ñëw ñu war a fay ñu ñëw fay ko si sutura kenn du leen topp dara. mais loolu laay ñaan Séné genn Sénégal yi ñu bañ a topp ñu mel ni Madiambal Diagne ñi nga xamante ni du ñu wax lu baax du def lu baax nan la journaliste mën a doon milliardaire un président mu doon sa patron de presse bëgg a doon mais xam nañu kon régime bi fi nekkoon moo nekk ci ginnaaw pompe la ba tey jii nga doon euh, ki nga doon tey régime bu bees ñëw nga war a fay nga ne doo fay foo ko teg du fay dañ koy jëli fu mu nekk day fay par force. loolu ay waxam la wax naa ko sànq euh, mënu koo fay exactement parce que 91 milliards yi Macky Sall wool wool leen wool woon foofu si daanu palais waxtaan na ñoom exactement euh, nécessitam pour daal leen koy li na xam ne que moo di jéggal moom nee na loolu du ko mën a fay concrètement mais da nga gis benn bu buñ ne jéggal nañ jéggal nañ leen mais dañu toog waxtaan ñoom ca pale ba mu jéggal leen jéggal boobu nekkul mooy li mu wax naa ko sànq samay wax ma ne patron de la yi nga xamante ni dañ doon def li Macky Sall bëgg ñooñu ñëpp daf leen doon jéggal mais loolu moo jeex. Hmm. Madiambal Diagne nga xam ne rupture moo am ci réew mi fii amul kumba am ndey ak kumba amul ndey ñëpp ñi nga xamante ne dañoo war a fay taxe nëkk ci réew mi dañ koy jëli parce que loolu comme comme boobu Sénégal daf ko soxla. Alors, euh, mais quand même, parlons de la presse exactement. Est-ce que euh, a utilisé la meilleure solution peut-être pour aider la presse euh, en amnestiant justement euh, le fisc, mais aussi exonérer exactement les presse. de Noura Est-ce que c'est la meilleure solution concrètement pour non, pour moi, ce n'était pas la meilleure solution. Parce que quoi qu'on puisse dire, parce que nous avons un compte, nous avons un compte, nous avons un compte,

ñoom dañu am seen syndicat seen biir euh, patron de presse yi. yi nga xamante ne ñoom ñoo doon ànd di dem ci Macky Sall. Hmm. dañuy toog di waxtaan seen biir. li nekkoon seen ah, problème donc donc doo doon petoo ak Macky Sall lu kenn yëgul. dañ doon petoo ak Macky Sall lu kenn lu kenn yëgul léegi li ñu demee di petoo ak Macky nag lii doon seen doléance bu ëpp moom mooy taxes yi nga xamante dañ ko war a fay. parce que ñoom ñoo ko ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo entreprise di liggéey di am ay kon dañoo war a génne seen i taxes mais da nga fay dajale di ko fa dajale ba mu doon ay millions waaye bañ ko fay té lolu dafa do li nga xamanteni dafa bok ci budget Sénégal da wara a parce que ñom ñom ñoko ko signé tey yooyu mom mo jeex seigne fallo tey lu wax ji li tax mo bari mom moy ko ni kenn ku ci nek la nga daan def xam nga ni mënatu la nek tey moo tax ngay di di di di victimiser wu bëgg Sénégal yi yërëm la mais dafa am na patron de presse yi xamanteni ñi ngi fi. ñi ngi fi ñi ngi fi à Dakar. Hmm. kenn déggu leen ci yenn coow yi. Qui parce que nous avons fait. fay ñu ma fait. na pas en tant que patron presse bi nga fait. dafa la ne fait. Sénégal. Hmm. un patron de presse warul jege état. mais ce n'est qu'un investisseur un investisseur c'est un sénégalais c'est un entrepreneur. il doit être yaa de dégg. Hmm. autonome li def daf ko de route de conduite bi nga organe par muy jege opposition wala muy jege li nga xamanteni mom moy pouvoir li fi amone fan yële passé nak ci régime Macky Sall. Hmm. moo taxoon ba yenn journalistes yi tamit mënoon a jege li nga xamanteni moy opposition bi parce que dafa dem ba yenn journalistes yi am jege Macky Sall wut seen i di yàq deru Sénégal yi te Sénégal di ñu wax li nga xamanteni mo fi nekk mo taxone yenn ñi jegewoon presse bi mais loolu lepp nekkul lu baax presse pouvoir la bi nga xamanteni dafa wara am autonomie bopam am ligne de conduire naté

man maa ne mel ni wal fajar yi laa fi gis ñi nga xamante ni ñoo nekkoon fii di bañ ànd ak Sénégal yi li ñuy bañ mais ñu siy bëri seeni i priorité dañu Sénégal yi dañu doon nekk ci ay problème ñoom ñu ñoom ñu nekk ci yeneen problème di distraire ñi nga xamante ni moom mooy les Sénégalais mais nañu Sénégalais yi xam les patrons de presse nañu xam ni rupture dafa am te euh, vraiment président lancé na leen benn appel na leen képp ko war a fay na nga ñëw nga fay ko si sutura war nañu mën a profité ci loolu. dem fay li ñu war a mën a may du fekkee li ngay fay mënoo koo fay global da ngay waxtaan ak ñoom day am exonération nga koy fay moratoirement ndànk ndànk ndànk ndax àdduna lépp waxtaan la ndaxte ki nga xamante ni moom mooy la président Diomaye ak équipe bi mu àndal bëgguñu affaiblir ñi nga xamante ni mooy presse bi. Hmm. ndaxte presse bi ay nit lañ jël ay Sénégal yi dafa liggéey ñu ñu duñu sañoon tamit seen liggéey yooyu ñu mën ko continuer bu baax a baax. Hmm. Euh, d'après Mounour ces ses explications ñoom ne en 2021 2022 2023 ils ont vécu toutes sortes de difficultés raison pour laquelle ils n'ont pas pu justement euh, euh, rassembler quelque yenn si ay li que peut-être pour d'aller di war a fay exactement ça c'est donc la presse est confrontée à des difficultés raison pour laquelle est-ce que loolu explication boo xam ne itam war nañoo war a raison ñu débarqué wu ak li nga xam ne que moo di les droits du fixe. moi je dis may is na Ndour Faye waxu ko daanu si sareet ma moom lay wax. Hmm. ndaxte ñun ñëpp xam nañu ni moom ni mu jege woon nguur gi nga xamante ni moom moom moom moo fi nekkoon te moi je dis que tey doo doo yoree doo groupe de presse da ngay xam li nga mën ak li nga mënul mais du fekkee ne nga àngu li nga xamante ni mënuloo ko lii moo la ciy fekk te tamit Maïmouna Ndour Faye Canal Info la jugee. parcours am Sénégal yi xam nañ ko lan moo tax mu mën a doon tey patron de presse parce que am na ay ministre wala ay DG yi nga xamante ni ñu ngi si nguuru i Sall mën nañ koo investir wan ko kanoo yi nga xamante ni mën na jaar wuti xaalis dëgg la du fekkoon dañ koy wan kanoo mu dem wuti xaalis pour ñëw taxaw groupe de presse am mu doon comme ni ma ko waxee mu doon groupe de presse bi nga xamante day tëdd njaaxaan jël ay employé loolu dañ ciy ànd. mais ku la abal ay bët. war la fu ko neex euh, ngay xool su ne euh, moom moo waroon nangu ñu koy abal ay bët war naa la ko sànq ne na journaliste dafa am pouvoir bu mu amee presse dafa am pouvoir bu mu amee dafa am taxawaay bi nga xamante ne dañ ko war a taxaw seen diggante ak société bi ñun si lañu ñun ñun pour société bi la société sénégalaise. Hmm. journalistes yi ñoom ñoo leen war di gindi. yenn ñi nga xamante ni mooy njariñ li thème les thématiques majeures ñu siy waxtaanee li jëmee réew mi kanam. mais dañuy divertir ndaxte tey dañuy divertir dañu orienté lan mooy waral loolu parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di jox xaalis noonu lañ ko bëggee mooy wax bi nga xamante ni wax nga ko léegi ku la abal yi bët fa ko neex ngay xool. Hmm. journaliste yi boppam moom moo warul nangu ñu koy abal ay bët. fi lañ dëgg benn journaliste bu jigéen du woo benn homme politique daf ko mais libre dégg nga lim ko tontu. Hmm. est-ce que kon daanaa ko wax ay wax ma xam nga kooku sax. forme prostitution boobu nono, waxuma boobu de mais daanaa wax ne ici au Sénégal certains journalistes font de la prostitution intellectuelle. Hmm, ci naka exactement. ok je m'explique tey li nga xamante ni moom nga bëgg a wax bëgg koo bind dafa laaj nga wute ay sources. ok def ay investigation ñëw traité ko xool ndax véracité bi mi ngi ci ci nga door ko publier mais. mais recoupement oui mais recoupement bi ma la wax noonu recoupement moo njëkk da ngay recouper fii recouper fii recouper fii recoupement yi dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy travail d' investigation boobu nga war a def. ba pare avant ngay publier mais ils ne font pas ça daf ñu loolu dañu wax naa tantôt ne dañuy dem ci ay homme politique wala ay homme d' affaire ñu jox ñu cooyal seen ceeb ne orienté leen ci li la ñuy bind loolu baaxul am na ñi nga xamante ni copie collé la ñuy def. gis information gis information rek xamuñu ni mu demee. rek bind ko journaliste du ko neexee bañ a joxe ay sources am am na si droit. Mm. mais na doon mu doon doon fekk mu doon li nga xamante ne lii dafa fiable. tant que ñoom journaliste mi ngi jël mi ngi jël euh, maanaam maanaam esprit teg ko ci xaalis journaliste boobu noonu nekkul ne day fa day jaaral yoon li mu war a jaaral. non mm. journaliste dafa war a yem salaire nit nag mën na laa gis. mën na mais est ba que nekkul milieu bas précaire loolu tamit mënu ko expliquer exactement. Euh, cax naa la ko sànq si kaw wax ma ne nit ki tamit dooy dooy jël da jël li nga xamante moom nga war a mën a jël mais actuellement tout le monde est journaliste n'importe qui qui est journaliste hmm. war a njëkk li ñu war a njëkk def te xam naa ni nguur gi ci la jëm dañ ko war a assainir milieu bi ko kan ak kan la ak kan mooy def lan ak kan moo war a def lan moom moo tax loolu di am mais les les vrais leen di wutal ñi leen ñi leen signé ay contrat ñu ngi leen di fay di leen toppatoo hmm. alors mais ñu jàpp ni euh, Ousmane Sonko dafa war